képp ko xamne bëgg nañu top bu abonné ci seen bi rek di mbak Kadior TV luñ duggal ci dana ko am en exclusivité du fi abdulalam mbar ba moore yi ya mbir waa daru alima xam kan mooy sëriñ baara jarbaatu seex abduloo na, mbar ma moore yi ya mbir li ma xam kan mooy sëriñ baara jàngul ba sonn ta doon gagar ci gaaya gagoon ca lawxu mahfuus man yem naa sëriñ baara fa la dàmbee xam-xamu bi kamam booleeg sirub alxuraan naa gëm sëriñ baara fa la dàmbee xam-xamu bi kamam mbooleb sirub alxuraan maagam sëriñ baara taalif na téere yu rëy yuy salmasi taxamul kaa nga ki foore du xam bindum sëriñ baara asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi bàyyi xel Mbacke Kadior TV fu ci waay mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñi ngi lay nuyu di la ziare tey jii di ajjuma yem ak 24 décembre 2021 ñu nekk fii ci Mbàkke Kajoor ci ndigalu Sëriñ Moustapha Mbàkke Mati Lay xalifa Sëriñ Mouhamadou Lamine Bara ibn Khadim Rasoul ngir ñu bale dëkk bi ba mu set ngir waajal bisu ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru rakkar ji gàmmu dëppoog le 2 janvier 2022 di màggalug Mbàkke Kajoor di bis bi ñuy màggal ak fàttaliku gane ak àdduna Sëriñ Mouhamadou Lamine Bara ibn Khadim Rasoul Mbàkke Kajoor TV fas yéene ci ànd ak yéen ci bale bi ba ci jullit ajjuma gi da ngeen ko mën am fii ci Mbàkke Kajoor TV ñu ngi leen sant leen gërëm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 ko xamni ki bu musa tangor ba geesu wetam lum xol mu tak jerit moo di sëriñ baara béjeen bu ba fi daane nooru diina ya woon yàlla ko sot ba mu ñëw te moy serigne baara beje bu ba fi daane nooru diina ya woon yàlla ko sot ba mu ñëw te moy serigne baara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 koo xam ni ki manu laa naan jéegi jaliili nas toppal ci Seex Ibra Faal santub Sëriñ Baara koo xam ni manu laa naan jéegi jaliili nas toppal ci Seex Ibra Faal santub Sëriñ Baara yónneen yaa xutbu yaak labdaar ya ak ñi fi woon kenn musu fee ñëw ba mbootum Sëriñ Baara ku du rasoolu te doo Bamba doo ku mu jur no manti tollu yoroo ndombay sëriñ baara xar baaxi Bamba ak mbootam yu rëy yamu xam ak muxjisaatam ya ñooy xeppug sëriñ baara xar baaxu Bamba ak mbootam yu rëy yamu xam ak muxjisaatam ya ñooy xeppug sëriñ baara mboo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 ñoo ngi fi nga xëy si ne moo di Mbacke Kajoor ñu taxawaat benn kilifa bu mag koo xëy si na kenn dootu ko natable muy seen Cheikh Bara Laat waaw ñoo ngi fi nga xëy si ne mooy Mbacke Kajoor si mbale mi sëñ bi maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. maa ngi lay ziar bu baax a baax sama sëriñ. ñu leen di delloo ziar te di leen sant ci seen teewaay fii ci bis bu tedd bi tey nga xam ne ñu ngi préparé yéen a ngi dégg. taalibe yi ñu ngi agsi noonu. waaw dafa mel ni oto ñuy préparé pour a setal dëkk bi ndax màggalu Mbàkke Kajoor bi ñu euh, nag toll ci di ko waajal te ren jii mu ak li euh, pandémie feebar bi di yéeg tax ñu gën a bëgg a setal dëkk bi ren yokk nañu ko daan defee euh, ba tax mbooloo mu toll nii ñëw fi ñu yokk nañu ko daan defe liñ ci jublu itam mooy mu ñu mu set ni mu war a sete ba nga xam ne jàngaro du mën a làq fenn ndaxte set dafa bokk ci imaan ak na saafatu minal minal imaan set dañu wax ne bokk na ci ngëm yàlla kon nag bis bii bis la boo xam saa bu ñu koy waaj di ko dëgmal sëriñ Sidi Moxtaar daf ñoo santoon ñu ñëw setal dëkk bi ba mu set euh, ñu di ko def depuis ñaar fukki at ak nangam waaye bis bu ñëw rek day mel na tey jii lay soog a tàmbali. wax di sant ñi nga xam ne am nañu taxawaay ci bis bi ki ñu cay jiital mooy Mbaye Touré li ko war lépp ci bis bi def na ko ni mu koy defee ci kër Serigne Touba yëpp waaye nag fii la rawee man kenn ku da ngay jàpp ne yaa ci raw kon ñu di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal moo ko njabootum yëpp di sant Idika ci taxawaay bi nga xam ne def na ko ci bis bii saa bu ñëwee di sant euh, gaaraasu daara. di sant Xaadim Guèye di di di di sant Xaadim Guèye gaar Daaru Musti di sant tam nag soxna Astu Mbàkke di ko beral cant muy suñu bàjjan doomu sëñ Abdu borom gën di ko beral cent koo xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu waaye ñu sant tam ICC Ibrahima mbay euh, ñu yabal ko fi li ko war lépp mu def ko dikk na def visite de lieu yabal fi benn yi yabal fi peel yi te nee dina ñu fi toog fii ba màggal gay weesu lu fi mbalit mu dindi ko ñu ngi ci dëkk bi di liggéey kon li ci des lépp nag ñuy sant euh, kilifa yu baax te di leen gërëm di sant transporteur di sant rawatina nag taalibe yi ak ndaw ñi ñuy sant taalibe yi bu baax te di leen ñaax ñu góorgóorlu te xam ne euh, nekk sax ci njub sax ci jaamu yàlla sax ci liggéey sax ci def lu baax ndax Sëriñ Tuubaa kat lu mu am loolu moo ko may. alxuraan teg tànkam ci alxuraan ak sunna mën nañoo wax ne lu mu am tey loolu mokk ko kon nag képp ko nga xam ne da ngaa xam moom sëñ Tuubaa da nga war a jël si tànk teg ko ci alxuraan teg ko ci sunna ndaw ñu nag ñu di leen ñaax ñu sax ci njub ñu sax ci jaamu yàlla ñu sax ci liggéey ñu sax ci lekk lu law te bañ yàkkamti ndax àdduna dara xëyu fi sotti waaye ñuy sant tam Mbacke Kadior TV nga xam ne moom ku ku ko dégg rek daal di xam ko mu kon lii sax. dafa bokk ci innovation yi ndax média dafa xew àdduna sëpp koy wut tey jii noo ngi ni taxaw bi yeneen média gisuma leen fi waaye gis naa fi sëñ Sow bu mu dëkk ci kër gi euh, teese gis naa ko fi gis fi Mbacke Kadior TV muy ñaari organes yoo nga xam ne ci kër gii lañu dëkk ñaari organes yi dëkk ci kër gi nag loolu moom euh, daf ñuy won ni yoon wi nga xam ne ñu ngi ko doon topp bi yoon woowu yéen a ngi ci aw ndax xam ngeen xarala jamono ji fan la toll xam ngeen média fan la toll tax ngeen nekk ay jeunes wëlbatiku wut ay média yoo nga xam ne kër gi lu mën a xew bu keneen ñëwee ngeen tasaare ko bu keneen ñëwul ngeen tasaare ko ndax li gën a wóor booy abbi da war a wut def ci sa poche ba noppi soog a dem booy abbu nga ab buñ la tamit ñoo ngi leen di encouragé di encouragé ñeneen ñu mel ni yéen ñëpp itam ñu wut seen yu mel nii nekk ci biir baax te leen sant dañuy ñaanal sëñ Mountakha yàgg si loolu te wér ci bis bi mu nga xam ne mooy njëkk te mooy mujj ñu nag dañoo faral di eh, setal moom lañ def muy di ci sant Sëriñ Tuubaa ba tax na fépp Sëriñ Tuubaa woote rek muy Mbàkke Kajoor muy Daaru Muxti muy Poroxaan muy Daaru Salaam fépp Sëriñ Tuubaa woote rek buñ dee setal ñun dañuy am yéene dem daal di jëm barkeelu ca liggéey boobu ñun daal eh, muy sëñ Baara muy Cheikh Modou Moustapha muy sëñ Fall muy sëñ Saliou ñun daal Sëriñ Tuubaa daal moo ñu ñor rek ndax ba tax na fépp fu ñuy tudd Sëriñ Tuubaa rek bu mu fi seetal ñun dañ fa daal di faral di teew. di ko gën a ñaax suñ ñun ñun ndaw ñi rek mooy fépp fu ñu woolee liggéey sëñ Tuubaa rek buñ ñu ca kenn man ndax kat àdduna yàggut te doole day jeex kàttan day jeex man-man day jeex kon nag suñ doole ji buñ ko sakkanal nañ ko jox sëriñ Tuubaa sëñ Tuubaa mi nga xam ne nii ba muy metti ba muy metti ba muy metti ñëpp toog moom mu jóg ngir taxawal drapeau lislaam ngir suñ jàmm ji tey ah kon war nañ lépp fu fu ñu wootee liggéey Sëñ Tuubaa rek ñun ndaw ñi buñ ca xaar sax ku ñu woo nañ jóg te xam ne Sëñ Tuubaa mu ñu koy defal jar na ko te am na fay damay dégg sax léegi nit ngay liggéey Sëñ Tuubaa ñu naan yàlla na Sëñ Tuubaa fay man man sax daa jàpp naa ni wax jooju sax daanaka nit ñi dañoo baax rek waaye Sëñ Tuubaa moom yaakaar naa ni amoon question la mooy posé Sëñ Tuubaa moom moo ñu war a fay wala ñun ñoo ko war a fay man question mooy sama grande question. kon ñoo ko déggoon ah. moo ñu war a fay ko war a fay. boo liggéeyee nit Sëñ Tuubaa ñu naan yàlla Sëñ Tuubaa fay. Mm. Sëñ Tuubaa dafa baax rek. nga xam ne loolu laal ci moom rek. Mm. sa ay xéewal di di sotteeku waaye Sëñ Tuubaa amee luñ ko moom waruñoo defal la dara naa ñun ñun ñoo ci des. ñun kay ñoo ko war a liggéeyal ba dee. Mm. liggéeyal ko bañ gas ñu suul. ñoo ngi nuyu mbokk jullit yi fi teew yëpp te di te di leen sant te di leen baal àq te leen balu àq ci coono yi ndax liggéey bi ñun ñépp noo ko bokk di jiital ci nuyoo boobu suñu kilifa gi toog di sëriñ Moustapha di ko jox itam bu jëm ci sëñ Ahmadul Mokhtar di ko jox it bu ko defee di ko jox it nuyoo bu jëm ci Cheikh Mouhamadou nga xam ne ñoom la fi nekkal ah? te ko sëkkitam ah? xewatuñ ko ci dara. ndax tooyaayam bi képp eh, firnde la ci loolu ndax ndax fu mu nekkul fu ne dañ ko fay teewal woo jërëm bu tedd wa amul fu ñu ko teewalu ci àdduna ca Màkka ca France ca Italie ci Amérique amul fu ñu ko teewalu ci àdduna moom nii tam nag loolu xam na ko te mi ngi koy jëf mi ngi koy dox mi koy waaye nag du ci man rek ci mboolem pour mu bokkal sëñ Baara te nga topp ci kawam te loolu xam na ko jëf na ko téye na ko bala maa jàll ci dara loolu mu leer ci kanam mu bi yi xam ne moom mii li ko war mën ci ndax boo am ak mbooloo jiita mag leen doon seen kilifa jiital leen ne leen loo leen def am naa ci sa jaan wàcce ña def loo kay ñooy am jafe-jafe ndax xamuñu la ñu def dana dëppoo ak la war a am wala déet waye yalla ñu ñuy dimbali duñu sa mbolam sa rek nga xam dañu top ci yow seen jëf dëppoo ndax jumaa ji ngeen di sa rek di top ci yow di sëñ Abdul Karim mom nga ne ko defal ko te ku fi dugg ya ko waxal sa bop legi xam na ne defal bi ñeebluwu ko te yene na ko te sa jikko dong nag mo la ko may Cheikh Sidi Moxtaar nek na fi nga jitu ci suñu karam ñun ñëpp ba pare tok taxaw ca gannaaw kenn mësu laa fekk ci bunt kenn mësu ta gis ngay xëccoo kenn mësu ta daara luñ mës a dégg ci yow lu wane ne sa baay moo jiite kër sëñ Baara wala sa baay moo jiite kër sëñ Touba mës ta am te man moom yàlla bind na ma du xalaatuma mukk ci àdduna di wax loo xam ne gëmu ko ndax fan ñëpp jële laa jële kon du wax lu ma gëmut lii may wax nag say jikko kon dafay baax boo wootaa boo jiitoo ci këram kër gi woo taalibe yi ñu jëf-jëf ju nii tol nii lim xam ci yow mu seere ko ndax taalibe yi mën nañ laa seere waaye yaakaar naa ni seere sa noo ci war a jiitu ndax ñun ñii say taalibe yi kon cant goo xam ne mi ngi bàyyikoo ci taalibe yi jë bàyyikoo ci kër gi jëm si ci yow cant googu laa tëgg beneen ba nga xam ne moom lañ cee teg mooy sëñ bi ku ñëw fii tey di nga xam ne la la fi daan ñëw ak li fi ñëw tey am na bu wute dawala fi dañ ni ku yëkkul yow yaa wàññi te dañoo wax ni itam sëñ Touba amul tànk gannaaw tànk kanam la tànk kanam yooyu nag ay doomam dañ fi nekk ba jóge fi ay ay sëtaatam ne fi te bés bu dee tayam june day gàccal démb ndax yàlla moo ko torale noonu lu nekk nag ak kam ko jaarale ci sa loxo waaye yokk gii ci sa loxo la ko yàlla jaarale ndax ku ne xam na li fi ñëw tey jii ne ko ni ko seen ni ko ni ko Assire loo waxee léegi Mbay Sekk waxee ko noonu léegi ñu màggal gi bis bi ñu bale dëkk bi moom la ñuy laaj kuy kuy laaj mbalem dëkk kay ma sa màggal yi taxut kenn di wax kon nag sëriñ bi taalibe yii la xam ne moo waraloon sëñ Saalum indi bis bii ci ñaar fukki fan yeeg juróom-ñett loola nañ ci sa loxo tey ji bi ngay yilifee dëkk bi ndax sëñ Saaliwu dafa waxoon ne kañ la ñu daan màggal sa waajur wala ko wax kañ la daan màggal sëñ baaraam mu ne ko benn fanu tabaski mu ne ko màggal gi nu mu doon mu ne ko mooy bis bu mu génne àdduna mu ne ko sa laaw loolu de baax na waaye nag damaa bëggoon gannaaw bis bi mu gënee àdduna ci tuubaa ñu yëgal ko sëriñ bi dafa am ay mbër yoo xam ne ku ci nekk ubboon nga làmbi lislaam ca wet ga nga nekkoon ñu wëlbati ku ñëw dar sëñ Tuubaa du jërul may tuddi tur ku ne gis na ko dégg nañ ko booy nay nopp keroog bi sëñ Baara gane àdduna la leen sëñ Tuubaa wax ni man ngeen a ñëw yiwi ko yéen ñëpp gan gi fi ñëw indaale naa li ngeen li ngeen li ngeen doon wut sëñ Saliou wax ne nañ toxal bis bi indi ko ca indi ko foofee ba ñooñee ca bis boobee ba nga xam ne ñooñee nga xam ne la fi lan doon wut bi sëñ Baara ñëwee indaale na ko ku demati ca bis ba wala nga jëf ca mbaa nga dox ca wala nga wax ca am la ñooñee am ca am am ca loolu la ñooñee am loolu moo waral bis bii yàlla dimbalee ma nag man sama jur wu tedd wa sant ma ni ma saa bu mbakk ka yor jigéen baleel dëkk bi boobu comité organisation sax amagut ci màggal gi ñaar fukk at ak ñett ci ren wala ñaar fukk ak ñeent mat na ma di ko def diko def muy jëm kanam diko def muy jëm kanam bam ñew ci yow bu won benn lañ mané won mi ngi ni nga ni téeméer a ngi ni ndax jëm ba upp lool loolee nak ndimbal lañ ko jappé non motax liggéey bi ku ñuy japp ci lañu lay japp ku ñu won ginnaaw ci lañu won woon ndax ñun sëñ baara moy ki nga xamné ne ñu nu waaw suñu bëb bi sëñ baara ko fess ba nopi dell nag laa wax duñ ca pesante duñ ci wengoote duñ ci muurante duñ ci def dara xul lu leen koy def ndax sëñ baar doom moo moo ko fees ndax sëñ Touba moo bindoo ni wet gu ne lam fa joxe soo fa duggee da nga naan sëñ Touba li mu amoon bàyyi na ko fi sëñ Touba ci moom moo bindoo noonu léppam foo dem fa nga féete da jàpp ni fii doomu la li wolof yi naan ndaw lu guddi la ku ko daj da ngay dee yow doo nga yaa ko daj njaboot Sëñ Tuubaa ñi ñi fi bàyyi naan lañ mel kon sëriñ bi li nga sant taalibe yi ñu def ko te te te sa maam ju tedd ja di sëriñ Tuubaa wàcce woon ci kilifa yooyu jox leen ndam li mu leen am ba tey jii ñu seenu yëkkati ko ñëpp di ko seen ca kaw taalibe bu teew ci lii yëkkati ko ba ñëpp di ko seen ci aw fan yëkkati ko ci aw fan yëkkati ko ci wërsëg yëkkati ko ci man yëkkati ko ci xol bu laab yëkkati ko ci xel bu laab ndax ñii nit koo xam ne bu juree jox la ko sukk jébbalu ci yow ngeen bokk yaakaar sëñ Touba ngeen bokk di dund lislaam ku faatu balañ caa jublu ñu ne sëñ bi waxagu ko ku dikk di bëgg nit ca biir kër ga nit ko sax fa ngay tàmbalee mooy bu juddoo yaa koy tudd si yaay joxew tur bu demee ba mata say yaay yaay ñëw ni bu ñëw nañ ko may diw boo dee deesu ko ko may moom lañ ko deesu ko ko may boo nee nañ ko ko may ñu may ko hmm. balaa moo sëy yaay ñëw muur ko ba pare nag boole koog nag loolu lépp jëmm yaa njaboot gi boole koog di ñaq te ñaq wi yàlla doo nga tax nag te itam lu waay jëf nag yaa ko moom kenn jëfalul kenn nag waman xamila saalihan fali nafsi lu waay jëf rek yaa ko te yéen jëf ngeen ndaxte boo doon dox ci kaw yoon képp ba fekk taxas wala nga fekk ko loo xam mu gaañ ko nga toppale taxas googee ba ba ba yoon ba ko jaar def dara yiw waja nekk amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem waaw kon ku buubu dëkk te mbooloo mu tal nii di fi daje wan yiw nga am yiw wa nga am amee ko ci loxo sëñ baara amee ko ci loxo sëñ tuba doy na fi sëñ Baara nelawee mu ci biir kër gii mun dañoo juddu fekk ñu ni lu fi waay ñaan mu am mooy suuf sii ngeen ko suuf soo xam ne loo ko ñaan mu am boo ko setalee mooy ñaan gi gën a gaaw ndax am na saafatu min al iman set dafa bokk ci ngëm yàlla te ñëpp gis na ni am na feebar boo xam ne xew na muy pandémie bi bii lii ñëw nii sëñ bi nga ñaan yàlla mu dàqal ñu ko mu dàqal ñu ko ba mu soog rawatina nag suñu bis bii ñuy waaj bu mu jege fii yëpp waaw ku ci ñëwit nga yàlla muccal la ci ci biir dëkk bi muccal la boo delloo fa nga jëmit kon sëriñ bi ñuy sant nit ñi ñëpp ñu bàyyi xel feebar boobu bu ñu jógee ba waaj jëm si ci màggal gi waajal ko te bàyyi ko xel ndax lu mu doon ci àdduna kat bu ñëwee nan ko gisee jàppee ko noonu rek te xam ne yàlla yàlla suñu borom. ndax feebar bi kat li muy yaatu yaatu yàgg gi mu fi yàgg ñàkk gi mu ñàkk rëccu dong la ñàkk gi mu ñàkk rëccu daanaka loolu dong la ndax yàlla yàlla moom inna allaha la yuxayyiru maa bi qawmin hattaa yuxayyiru maa bi anfusihim yàlla amul changement nun kay nooy sensé ak dem ak ñëw ak nangam waaye moom fam nu tegoon ba ne wala xad karam naa bànni aadama wa amal naam fil bëri wal bëri wala sàq naam mina tayyibaati wa fadlan naam ala kasir man xalaq naa tafdilan yàlla foofu rek la ñuy teg du fa jóge ba mukk tàggatal doomu aadama lépp. Mm. lépp bopp lu ko soob mu jëfandikoo ko te dara mënu koo jëfandikoo moom. feeñal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom. feeñal Serigne Touba ci nun mm. kon loolu doy na sëkk sant yàlla. Mm-hmm. kon sëriñ bi lu ma mën a wax lu ma mën a wax rek ñuy jóg ngir yow nga woote ñu ñu wuy la la nga bëggoon ñu def ko te béréb bi fees del lépp nekk fi. duyal leen ba feesal kooy mosal nga soog a nga soog a mus yaa xam koy musal waaw waaye mu ngi fii yëpp yaa ngi fii waaw li mu saf ki ko wàcce ko xam ku ne fa nga dëkk nga xam man fii laa xam waaw kon seen bi toogaay bi yàgg na ci yow te te te liñ bëgg a wax lépp xaj ci ñii moom ba ngeen ñëwee. jërëjëf waay. li ma bëgg a wax sëñ bi travail bu yàgg na te ñii moom ba nga toogee génn ci jàkka ji ñoom ñu jàkkaarloog yow mu mel ni sa wajur wala ñu jàkkaarloog mu mel ni seen baara la ñu jàkkaarloog booba la seen xol seen kon nag naa ne boo boo ñaan rek li nga def daal mooy transporteur yii nga xam ne asile loo doon na ko wax léegi man mënumaa tudd ñëpp waaye Mbaye Touré comme ni ko asile waxee sa xarit di sunu xarit ñun ñëpp di xaritu yoon wi ku bëgg lu baax jëfam fii jëfam daa def fépp de waaye fii dañoo wax ne dama damaa jàpp ne moo ci raw kon ñoo ngi koy sant ñoo ngi koy gërëm ñoo koy ñaanal ndax kat àll mutta ñu ne ah kay mat naa nawe ndax nit ki def lu baax nga ne war na am na moroom moom mu ne te wetam am lam am man lam te bañ ko ko santee kon nag ñoo koy sant ñoo ngi koy gërëm ñoo ngi koy ñaanal itam sa xaritu sëriñ bi la woon sa xarita sama xarita xaritu ku bëgg lu baax nga xaritu bu yomb ndax ba ma ko wooyee lim ma wax mooy loo soxla ci woto waxal lim bi nun toll di bul woo keneen man ne ko nag damaa bëgg nga mos keneen mos keneen waaye bu ma ko ne woon lii laa soxla rek du ci teg benn baax idika mii noonu noonu la def xaarim ngeen noonu la def Abdou Mbaye ca gaara daara ñoom ñëpp daanaka jëru may lim ndax agit loolu lim leen ku ma limut itam na nga xam ne yow yaa jiitu ndax li am solo mooy ñàkk jariñu ñàkk jariñu képp ndax kenn mënut a jël liggéeyu kenn de ndax am na mag ma ma nettali ne dafa am bis ci ci Mbàkke Bari am ñaari dongo yu xuloo ca daara ja bañ xuloo ca daara ja ñu ñëw ci kër gi kenn ki jiitu wax sëñ bi comme kilifa yi ci benn nopp lañu doon bi mu yegsee sëñ Bara daal di ne ko yow diw li nga ma liggéeyaloon dinaa ko nangu waaw moom ci boppam sax dama jamono bind noonu rek moo tax jaaruma ci tuuba yow diw li ma liggéeyaloon dinaa ko nangu mu jóg taxaw ni ko mënoo ko wax ko sëñ Bara sëñ Baara daal di jóg waaxu ba ci digg naaj boo fekk muy digg bëccëg mu xool ci jant boobu yàgg mu dikkaat toog ni ko eey mbay li nga ma wax dëgg la de son sama borom laa doon laaj ndax mën na maa nangu li nga ma li nga ma waaye nee na ma ñàkk borom rek ama a ma la saalin falmos kon lii ngeen ñàkk fii kenn mënu ko nangu kenn mënu ci dara tey tam ku yàlla bëgg a dimbali képp lay joxoon fanjaariñ fanjaariñ la waaw ku yàlla bëgg dimbali moom lay joxañ fa njariñ ne waaye ku yàlla natt dimbali kat da lay réeral ngay saaga ak wax lu bon ak ak ak ak lii bu waatee kat fu nekk nga dugg fa waaw loolu lépp ay xeeti réer la rek waaw kon nag sëriñ bi mbooloo maa ngi nii li ma bëgg a wax lépp mënu ma ko wax euh, am na yokkute boo xam ne am na ci mbale bi muy muy service bi ñu wax ICS ku ñuy wax Ibrahima Mbaye jiite ko nit la jottali ab cantam di sàkku moom it mu jottali cant gi ba mu yegg ci ab directeur am yegg ci ministère am ñoo yore mbalit mi ci Touba ak ci feneen fu bari ci Sénégal waaye daa ñëw wër si dëkk bépp fata ko foofu mbalit nekk mu xool ko indi fi ay beeram indi fi équipe indi fi peel suba ba tey mi ngi fi nee na yëmul ci loolu nee na dala fiy toogal bañ ni suba la màgg ba bisub màggal ga lu mu war a def ci dëkk mu def ko indaale na wata boo xam ne bu xëyee day quartier yi ku yor mbalit génne ko teg ci ngir kër yi bañ a taxaat ba keroog màggal kon nag na na yokkute a ngi noonu li ma waxoon ku woon ku yokkul yaawaat kon nang ko ñaanal ñaanal personnel am ñaanal ay kilifaam ñi xam ne ñoo ko yebale itam te fii dëkkub ñaan la de te kun koo ko war nga koo gëm ndax ñi ñi jóge fii mën a ñaanle kenn xamul nu mu toll kon nag fi mu woon nga mën a ñaan yow kon sëriñ bi li ma bëgg a wax lépp mënuma ko wax ndax xol bu set waaye nag maa ngi gërëm fédération bunti këri sëñ Baara yii nga xam ne mboolam doomu seen baare jur dañoo àndandoo ku nekk jël sab daayira dugal ci biir daayira bi ñu àndandoo bi ma sa waajur wa santee liggéey bii nga ñëw sant ma ko ma jël ko teg ci seen loxo ñu tàmbalee ko fañ ko war a tàmbalee si Abdou Aziz Lo mi seen président de Mbaye Seck di président bi ak Abdou Aziz mi ak ñoom ñëpp. ñu tàmbalee ko fañ ko tàmbalee ba ñu yëg si fii taxawaay biñ ci war a taxaw ñu taxaw ko ba mu mat sëkk liñ ci war a def ñu def ko ba mu mat sëkk kon ndax bañ ba ma ba ma leen ko dénkee damaa xam ne ñoo ko moom ma jël ko dénk leen ni maa seen ginnaaw man fu ngeen jaar ma lu ngeen wax ma def ko lu ngeen ma itam dinaa ko jox waaye nañ ko war a defee defee nañ ko ci yar ci teggin ci góorgóorlu ci soññi nit ñi ci taxaw taxawaay bi ñu war a taxaw ci pas-pas ci bëgg ci lépp. lépp yow kon nag ñoo nag sëriñ bi nga ñaanal leen ñëpp laa bëgg nga ñaanal leen de waaye dañ leen a jiitaloon ci liggéey bi di leen ko liggéey loon ñu defe ko nañ ko defee ñaanal leen te ñaanal mbooloo mi sëñ sëñ bi daal fii ku fi jógee na fi jógee aajo ju faju tey ak ëllëg waaw waxuma ci tey rek waaye tey ak ëllëg laa ndax sëñ Baara faj aajo moo ca gën a gaaw lu mu wax boromam mu waaw day fay ci fàll ca gaaw xoolal ñun maam baara mooy wàllu ñaamur ak Kajoor lu neex borom ku neex borom Mbàkke Kajoor njaamu rek a joor Cheikh Modou Lamine Bara guddu tufanteer maane rek a taxoon musiba yooy mi ndee fi moo ko kàddu woon Cheikh Modou Lamine Bara guddu tufanteer maane rek a taxoon musiba yooy mi ndee fi moo ko kàddu woon lu waay tawat ba fa moom moo faat ko ci benn sàkku na ma mu jox ko kéemaan ku eloot ku jaaxal jamono كمان بوليلوت بداخل زمنهم تي اي وخم ربارة يا حلو يا خامد اللمين جدي المكين يا مدى اللمين احمد اللمين مدى اللمين رجبار يقول ذي جزيخ مدى اللمين جدي المكين مدى اللمين مدى اللمين مدى اللمين